a ngi jooy jug leen daalal mu ne nag man Amina damay faatu mais sama tur fi jug ndax dama fee bàyyi doom joo xam ne ku ko fi bàyyi yaay di ko indi ci àdduna kenn du ko fàtte muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa loola yóbbu woon kooka di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaaju Seydou Fall ñu ngi koy bu baax di ko wàccee wàccu waaye moo yóbbu kii ñuy waxtaane tey di ko fàttali ko muy Seyda Dayna Fall rahmatullahi alayha wa radiya anha ndegam rasuula xëy na mees xam fii kenn du fi des da ndegam rasuula xëy na xam ngeen ne fii kenn du fi des falaw kaanat dunia taduumu li waaxidin la kaana rasulullahi fihi muxallada bu fekkoon ne am na kenn ku suuf si di gedd kon sang bee ñu rob ca Madinatul Munawara lay doon waaye wàqi nañ suuf si ba mu xóot ñu dugal ko ci aw ba bakar taxaw di delloo si nit ñi naa leen man kaana yaxbudu yaxbudu muhammadan fa inna muhammadan qad maata wa man kaana yaxbudu allaha fa inna allaha xayun laa yamuutu lu tax yàlla jël sang boobu dafa bëgg ñu miisee ko bu nu ñàkkee mel ne Zeynab Fall ndax li yàllay teg yenent yi pour ñu miisee ko yi nuy dal ñun la tasliya la war a doon ci nun yenent bi ba léegi ronxañ yaa ngi tuuru ñu koy jooy waaye taxul mu dellu si yamal xiyaam rek la ko bët yi di gisaat xanaa ña yàlla baaxee ci kaw suuf ñu am miracle gis ko loolu miracle la ku amul miracle ba mënatoo ko teg bët yamal xiyaam rek ku yàlla baaxe nga jaar ci yoon wi nga war a jaar ëllëg dañ ko gis sa alayhi wa sallam ñu ko ñàkkee ca Madina saxaaba yi dañ ñëwoon mënuñoo dégg ñu naan leen yenent bi faatu na Abdullah ibnu toolu tàndarmaam lañ ko fekk ca tookóor ya ca àll madina ba tàggkat bi ñëw ne ko xanaa yëgoo li xew mu ne ko déedéet lu xew mu ne ko Seydina Muhammad génn na àdduna Abdoulaye ibnu bi loo mu ne ko dama ne yenent bi na mu ëlbatiku jublu pen ko ne yàlla tàggkat bi bu fekkee lii mu wax dëgg la ne yenent yàlla Muhammad faatu na sama bët yi yaa ma ko joxoon ma koy gisee bëggatuma ko téye ko ndax may dundati di xool ci kaw suuf te sama bët tegewul ci rasulullah yi doyatuma bët dara bi mu jëlee loxoom raay ko ci kanamam la bët ya silmaxa ba mu ji yonent bi gisaatu Abdullah ibnu Zayd Abdullah ibnu Unays dañ ne ko yonent bi faatu na muy lox di lox ba paralysé ca la jaaree jugul ci lalu feebar boobu gaar ko muy paralysé ba mu wuy ji yàlla sunu borom subhanahu wa taala fekk ci sang ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ki jël kooka madina inna aljamadaati kaadat minhu saadiatan fa kayfa man amanu billahi rabbihim ki jël kooku aboubacar rek ànd ak sagoom omar li gëm-gëm nga di foor foor ousmane li ngëmam di foor foor aliyun li ngëmam di foor foor ku ne ci ñoom saalit bi Seydina Omar bi ñu ne yonent yàlla Muhammad faatu na gàdd jaaseem la gàddu ne ku ne faatu na ma tàqale sa bopp ak sa baat Seydina Ousmane ibn Affan biñ ne ko yonent bi faatu na lam mi dafa damm muy bëgg a laajte mënatul a laajte muy liyaar di liyaar naan tàggekat bi loo wax lam mi mënatul a wax lam mi damm ci saasi Seydina Ousmane ibn Affan Zul Nuurayni Ali ibn Abi Talib dañ ne ko yenent bi faatu na mu ne bëxër ñëpp bëgg a taxaw tànk yi damm mënatul a dox muy raam di laajte tàggikat bi loo wax bu ñu ñàkkee kooku ñu tedd ñooñu yëgee ko noonu bu ñu ñàkkaatee kumu ginnaaw bi war nañ ko muñ ah dul dul mbaamam dafa samp xël rek utali garab mbëkk ko fa la yem xas waa gële ma mbëgg gedd lekk naan lekkatul naanatul ba faatu bi yenent bi faatu sallallahu alayhi ah mais bu ñuy fàttali faatu kooku ngir ñu mën a muñ ku sori woon ci sunu xol ku mel ne Zeyna Fall war nañ ko mën a muñ ndax ndax yenent bi faatu na Aboubacar wuutu ko faatu Omar wuutu ko faatu Ousmane wuutu ko faatu Ali ibn Abi Talib wuutu ko faatu te xoolal ku dul Aboubacar ni mu faatoo ni mu yéeme dañ la boobu Alioune dañ ko boobu Ousmane dañ ko boobu gannaaw buñ ko gawee lu man ay fan ñu gaw ko encercler këram moom Seydina Ousmane ibn Affan amul fu mu utee ji lekk amul fu mu utee ji naan noon yi ko fekk mu yor kaamil bi di jàng deret ja topp ca kaamil ba moom Seydina Ousmane ibn Affan xoolal dem gu métti googu sang bu tedd boobu Aliou dañ ko boom dañ ko boom la sëñ Moussa Kanaan ba muy jullee fajar la ibnu Maljam boccib gobar bett ko daal koy jam bu ñuy fàttaliku ñooñu seen dem ana ummuhatul muminin anañu ana sunu yaay Khadija ana sunu yaay ana sunu yaay Safiya ana ana sunu yaay bintu Jahshin et cetera et cetera ana sayyidatuna ah Fatima ana mu ana Fatima ana ana Zeynab ana Umu Kalsum ku ñàkk ñii ñoo gën a baax kuñ mën a ñàkkaat ginnaaw bi dañuy xam ne rek philosophie yàlla la kuy abale moo sañ na delloo ma te dund gi yàlla daf na ko abal mayunu ko walan yuaxira allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirum bima taamaluun aynama takunu yudrikukum almawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada ku bari woon pexe ba yéeg dem asamaan ñu làq la ca bidiw ya dee dana la ko fekk wàcce la ñu dugal la ci biir suuf laajal saba reen boobu ñu doon woyee saba laaj ko immeuble la tabaxoon boo xam ne piccum xoob li muy mën a mën a naaw mosula mën a naaw ba tolloog immeuble am ba ca kaw ca jamono yooyu ren boobu ñu doon woyee saba mais ca immeuble am ba la ko dee fekk ñu wàcc ko dugal ko ci biir suuf koo koy dee ku jël yeneen yàlla Suleymaan ak pouvoiram bu rëy ba yilifoo nit ñeeg jinne yi mu taxaw yor kaanam faatu faatu jinne yi di nekk ci service am yëguñ ne faatu na yëguñ ne faatu na ba max yi ñoo ñëw max bant bi Suleymaan jàppoon ba max ga jeexal bant ba bant ba rëcc ci loxo Suleymaan Suleymaan daanu ñu soog su yëg ne Suleymaan faatu na ci def loolu mooy yàlla nañ ko ragal ak a mat buur bi dawal ndox mi ci géej gi téye avion bi ci jaww ji <laughs> moo ma taragal ëkk ma taragal ñu sëriñ Babacar si mu daan wax naan ku ragalut yàlla da ñàkk jom rek ndax bind na loo ragal ku ragalut yàlla da ñàkk jom mais bind na loo ragal bind na loo ragal am na ñoo xam ne mbóot rek ñu tàqalee ko seen sa ko mbóot te mbindeef bi gën a tuuti ci mbindeefu yàlla yi mbóot rek ñemewuñ mbokk yi ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp di leen ziyaara di nuyu waa ixwaanul muslimiin wal muslimaat mu gën a yaatu jaajëfal leen ci initiative bu rëy nga xam ni am nañ mooy kenn ko daan ànd ak ñoom di wéttaleen kon teg ñoom bàyyeekoo fi ñu koy fàttaliku yàlla yàlla fay leen yiw te dëgëral leen te ngeen yàgg ko man di ko taxawe sa Saïd jërëjëf ci taxawaay bi yàlla yàlla fay la yiw di bu baax Adja Mama Mari ba di ko ziyaara di ko wàcce wàccu waayam ak mboolem jigéen ñi ñu ci ràññeek ñu ci ràññeewul soppe Zeynab yi kenn desul borom yaa layta qawmi yaalamuuna bima xafara li rabbi wa jaalani min al mukramin bu ñu ko tuddee mu matal ñëpp ndeysaan koo ci gis ci ñoom rekk sa xel dem ci jigéen bi waaye noonu la waxoon naa ko bi mu génnee àdduna ma ne il faut mu dem ndax dafa dem ba amatul ci kaw suuf espace bu mu dalloo yàlla ne ko ñëwal ci man dallu si te bu ñu duggee ci biir waxtaan bi da ngeen comprendre lu tax ma doon wax loolu ndax dafa ràññee rek occupé ba ba muy wuy ji yàlla waaw dafa ràññee rek occupé ba ba muy wuy ji yàlla noppaluwul laaj ko ñoom faama jànq léeg-léeg sax ñu ne woon dañ koy jéem a sàcc pour yóbbu ko mu noppalu ji waaye mënuñ ci dara far noppalu mooy gën a nekk coonoom kooku la ñu wax ne bu ñu fi dikkee tey nañu waxtaan fàttaliku mooy kan ak lan la ñu mën a jàngee ci dundam yan leçon lañ mën a tiiree ci dund asayda dayna faal rahmatullahi alayha